rabbi auzu bika min hamadaati shayaatini wa auzu bika rabbi ay yaxdurun rabbi saxli sadri wa yasr li amri waxlul uqudatan min lisaani yafqahu qawli washkur qilaami waxmad kalaami bila malaami wala mtiraa'i saddid lisaani nawwir janaani soffi amaani wa zid baraa'i nuxayikum jamian wa nuhanni'ukum bi hadihi alxafla alxaflatu alislaamiya almuridiya alsuufiya yasurruni jiddan an naisha mahakum burhatan bi hadihi shukr yowmu shukr ala hiya azamul ibadat wa axiruhu aw wa axiruha uxayi xadaratul kiram awwalu man minhum cheikh Mouhamadul Fadel wa alxaaji Madiagne wa Serigne Saliou Mbène uxayikum jamian uridu an nataxaddas maakum xawla xadiyati shukru allazi yatajassamu ruuxal islaam tajsiman xayyan wa hada wa hada shahru shahrun mubarak shahrun azim shahrun min shahairil lah kama qaal subhanahu wa taala haadihi shahru kullul awliyaa yauzzu bihi hazan aziman kariman la siyama kama qaala cheikhuna cheikh saalihu Touré cheikh saalihu Touré wa qaal wa jaani faydul ilahi wa zaaqahu ilayya xadimal Mustafa wa huwa zaaxiru wa yastahzi'uhu akbarul munaafiqiina fi haazaa rajab fi haazaa shahr shahr rajab wa qad badaa al ams Moustapha Diakhaté nuriidu an nataxaddasa bihaa aw bihi wa qaala cheikh ahmadou bamba qad fi min shiraafin ma ata ahadun minhum bi faaishatin awtura anil awtura asari anil asari ñu yamale foofu kàddu yooyu di ko barkeloo di kàddu yaaram xëy ni arab yi naqari na dëng na Sëñ Saliou ñu ngi la koy jéggalu bu baax baax a baax a ñu ngi la koy jéggalu bu baax <laughs> shukran ñi ngi tuubal ñëpp bu baax ci kàddu yi ñu yëkkati ci sunu kanamu waajur sëriñ Serigne ci am xaritu boroomam euh, man di dama koo gëm xëy na doom dana yéex a gëm nag moom loolu moom laa chàkk laa xarwa it ndax jige gi mooy tax man kër kilifa yi ma yoroo sax seen jëmmi doom yi dëgg-dëgg balaa ñu leen a gëm day yàgg waaye damay am ay clients yoo xamante ni duma ci man dara dara laaj dul man te encaissé seen xaalis it moom du laaj waaye man damay laaj ma woo ko téléphone ni ko am naa euh, koo xamante ne wax dëgg yàlla fan yii yëpp maa ngi ci moom waaye daa mel ni affaire yi xaw naa dëgër deux minutes la may woowaat ni ma nee ko bu xëyee na génn donte hôpital lay nekk engagement boobu nag dafa kawe engagement ni jiit nit na génn hôpital sama doom la ko njëkk def sa doom dama ko bëgg bis bu ma ko waxee dama ne sama yaay sama sama bàpp moom sëñ buñ ko déglu buñ ko déglu boobu maam jaara mi ngi hôpital médecin bi keroog dañ ñu signalé yéen ñëpp wax ca waxtu yéeme bàyyi seex woote Touba ni na génn bi ñu génnee ci guddi gi la wér wallaahi alazim ak weer wu tedd wi kenn ku nekk nag na nga gëmee noonu ngay jëriñoo yàlla moo dogale noonu ay mbiram waaw kenn ku nekk na nga gëmee noonu ngay jariñoo yàlla dugal ay mbiram sëñ euh, Saalixu Mbenn mi nga xamee ni mooy sunu sëriñ di sunu sëriñ daara ñu ngi koy nuyu di ko jox waayam bu baax a baax a baax a baax a baax ndax sunu mbir fu mu toll ci wàllum jàng xay na soreeguñu sax dañuy jàng fenn laa estate benn estate naan di yedd sama bopp naan bul bàyyi jàng mukk ndax sëñ bi moom ma waxoon sëñ Saliou Touré ci kanam Baye Madiagne mii ci kanam Baye Madiagne la ni ma woo xale yëpp mu ne leen dénk naa leen Seydina Alioune Thiam mii bu ngeen demee lu mu li mu xam ne leen ci dimbali daani ma bul bàyyi jàng mukk nag waaw daan ni moom dama tal moom suñ bi waxal boppam di di wax ni damaa dal baa tabayeegu ma te bayit bii ma lay wax nii moo ko way di bayit yu bari ci cëral bi ko yàlla cëral ci weeru rajab xëy na guddi waxtu bi du dañuy bañ a guddal waaye dañuy tàmbali tuuti rek balaa ñoo àgg ci loolu muy sëriñ bi sëñ Tuubaa dani juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan juttu lahul di wa waladi fil alam wa waladi wa walidi fil alam mu mel ni loolu buñ ko saraa tuuti rek day dugg ci can cant la ñu bëgg a wax waaye dafa am ku laal Euh, waajuru yonent bi sallallahu alayhi wax ci wax ju ñaaw te mu ni askan ni Touba la dëkk Touba man ngeen ni fi nga dëkk waaye dëkkoo fi day mel ni euh, soxna Firawna ba Firawna mi ngi jàpp ne mi ngi sëy moom waaye sëy ak moom sëyal sëñ Touba ni moom su jote naa sunu subhaanahu wa taala yeneen tam bu tedd bii jote naa ko moom a gënal sama ruu jox naa ko sama ruu ak sama ruwu doom sama ruwu waajur ci lu biir ak ci lu nëbbu kenn taxaw fee ŋàññ ko ŋàññ bu méttee méttee métt waaye ci weer rajab bi la ko ŋàññee di ñaawale sëñ Tuubaa wax ni yént bi sallallahu alayhi wa sallam xadistu fii min shirafin ma ata ahadun xadistu fii xadistu fii dañuy loolu damay wax ne Sëriñ Tuubaa li muy tàmbal lépp Istafa Mustafa yooyu lay tàmbalee lu ci ëpp ci ak njëlbeenu dara ci ay karaama ay wala walla daraja mu wax ne yent bi dañ koo tànn mu doon shérif ak ci askanam wépp Sëriñ Tuubaa it moom it signé ay pacte yoo xamee ni da koo bëgg a liggéeyee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu mu njëkk ci am yu dul yu ko jiitu waaye ginnaaw bi mu siñee li mu bëgg a signé muy fukki ngërëm ak benn dama ko doon wax yàggut fan yee fukki ngërëm yooyu ak benn sëñ Touba da koo bind ci Mawaahibu muy Mawaahibu la ko bind muy 11 te Mawaahibu boo dee xool yëpp ismu isaara la ciy jublu ci yéen bi sama asam day junj rek huwal karimu bihi arumu zakal muniru zakal basiru junj la ci gi léegi huwa dajee tudd fukki ngërëm ak benn yoo xam yëpp mi ngi ci Mawaahibu léegi fukki ngërëm yooyu ak benn yépp da koo war a jëmmal mooy kenn ku ci nekk da koy liggéey ba sunu borom may ko ko mu tàmpane ko mu soog ko wàcce ci àdduna kooku dund ci sëñ Modou Moustapha la tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha la tàmbalee moo tax mu ne xadistu fii min sharafin ma ata ahadun mu war a am sëñ Modou Moustapha ay waajur yu tedd yoo xamante ni sëñ Touba ni mu daan sàkkoo soxna ni kenn ku nekk na ma ko da koy uti ci koo xamante ni juróom-ñaari maanaam mosuñoo lekk am moyaan mosuñoo lekk riba ci lu ci ci lu dund lu lew rek lañuy ñuy dundee pour mu mën a am loolu mooy yonent bi saa asam jëm jëxëran ju taxaw mu di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp moom sëñ Touba di ko topp di ko topp di ko topp ba suñu borom may ko garab boobu bi mu ko ko tamponelee may ko suñu Moodu Moustapha mu judd bi mu ko ko mayee ñëpp xam ni sëñ Tuubaa ñëpp xam ni kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa kii moo ko doon ba jamonoom yëpp d'accord ko jamono ji ñëpp d'accord ko mu ni moom garaat boobu rek doyut am na leneen lu mu bëgg muy ngëneel sëñ Tuubaa mooy wax de am na leneen lu mu bëgg muy ngëneel ñëpp xam ni moo fi gën suñu borom ni ko loolu tamit beneen liggéey la laaj muy liggéeyaat loolu di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba suñu borom may ko Serigne Fallou tamponel ko te Serigne Fallou moomu ci weer rajab bii la ko tamponé ci weer rajab la ko ko maye xam nga wax naa leen léen yi suñ doo suñ saa yu wax ne waxat jaa an yi faydul ilaahi wazaaqahu ilayya xadimal mustafa huwa zaaxiru sëñ Tuubaa maa ko gis ci mbindam mu wax ni sunu borom moo ko may faydu moom sëñ Saliou Touré ci weeru rajab te sëñ Tuubaa la ko teg ci loxoom ni ko tegal ma ko ci loxo sëñ Saliou Touré sëñ Tuubaa la ko teg ci loxoom mu ne ko tegal ma ko ci moom kenn daa xamul lu mu doon ndax gis nga fadlu dafa garaaw alladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim anzamu darajat bi amwalihim wa anfusihim anzamu darajat inda llahi ulaikum faizun yubashirhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan anzamu darajat waaye am na leen lu ko lu de ngërëm loolu ak ngëneel loolu moom la Sëñ Tuubaa am moom la ut ko muy Sëñ Fallu mu war a demaat nag amaat beneen ngërëm muy ñetteel muy sëñ Mouhamadou Nil Lamine Baara waaye nag dafa am loo xamante ni mooy moo moo ko yóbbu moom sëñ Touba loolu lañ xamagul woon mooy yóbbashiru yóbbashirul lazina nangam bu demee aljana ñoom ñëpp moo leen di servi ñëpp moo leen dugal aljana suñu borom ni ko loolu nag moom dafa jafe yombul toog sa dëkk bii du la ko may loola yombul toog sa dëkk bii du la ko may faaw nga dem taxani taxaniwaat bi muy commencé di taxan moom suñ tubaa di taxan di taxan di taxan di taxan ba commencé am am loo xamante ni manqué na suñu borom ne ko ga ngay génn bi mu génnee tubaab bi yóbbu ko ngir mu amal am bushra googu yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu googu pour mu am ko faaw mu dem bi mu demee ci géej gi am suñ basiru mbégte moom mag moo tax bi mu wax iñaar rujuwan yi ila xawmi saadana wal tag fi naa yowma jamin xalqi niiraana yubashiru kul baaxi bi xatti karamatan yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko doon démontrer tey jii day bari waaye bi mujj mooy ngërëm yi nga ñoom ñëpp baax nañ boo ko dee topp fukk lañ ak benn kenn rek moo ji muy fukk ak ñaar muy sëñ Abdou Abdou Samad te sëñ Abdou Samad dafa teel dem mi ngi dem ci 30 ans fanweeri at lan moo tax mu dem ci fanweeri at moom samat la dafa génn alxuraan ba mu daj benn samat moo ci am muy xul wala axat alxuraan ba mu daj benn samat moo ci am alxuraan ñeenti de sa eh, xulu lixlaas boobu ñeenti deel la ñeent ñeenti doon yi mooy penku ak sow bët ak gànnaar bu dee ci yenn téere yi bind yi ne gën a miin ci suñu dëkk bii nii juróom benni juróom benni tomb la juróom benni tomb juróom ñaar te loolu juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf yooyu juróom-ñaari juróom-ñaari ba muy 28 muy limu Touba ku dem ci gëstuwaat da nga ko xam ku gëstuwaat da nga ko xam loolu moo tax sëñ ñu rocc ko moom mu ngi fukk yi ak benn ci góor laa wax de des bul ni ma jigéen ñi jigéen ñi leneen la beneen jàngat la laaj léegi waaye Mourtada gi nga xam ne moo tëj affaire yi Mourtada moo tëj mooy gërëm li gën a mag moo tax sëñ Mouhamadinil Mourtada bi sëñ Modou Moustapha dajalee ñëpp sëñ Mbacke bu sa woo ni ñabootu sëñ Touba gépp nañ jéppalu sa nañ jébbalu sëñ Mouhamadul Moustapha ñoom sëñ Falloog sëñ Saari wak ñëpp jébbalu sëñ laa bañ ne ko jébbalu dañ du ma moom loolu la wax a ah, ñu ni ko lu tax doo jébbalu mu ni man yeneent bi mooy sama sëriñ baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul baana li kulli man lahu saada anna am na abdillahi so siyaada loolu leer na sëñ Modou Moustapha ni ay wa nañ raxasu xéewlu bi ñu raxasoo xéewlu ba noppi mu daal di woote waat moom sëñ Mouhamadul Moustapha daan ni man day bis mi ci tey jébbalu naa ci sëñ Mouhamadul ci benn jotaay benn ni leen ndax dafa am loo xamee ni dama koo gis ñu ne ko mooy lan mu ni sama baay sëñ Touba de sama waajur sëñ Touba bi mu ñu woowee maag sëñ Fallu mi ak sëñ Basiiru dina wax ni gor suy lekk day tenxam bi wurta tax ñaari baaraam la war a lekke te moom mi boobu xaajul bay juddu te ñun moom rek a ko fi def sëñ moom kaamil la daan naafila ci fukki atam ak nangam ba ni mu nopp lu noppaloo ñaari waxtu la musa a tudd tëdd da dallu muy ci ak mu jëm te ñaari waxtu bi mu ko dalloo ba noppi bi mu ko dalloo ba noppi guddi gi ba mu jógee dafa tiit ni bërëb daan ni ana ab jullit lu muy nelaw ba ñaari waxtu ñaari waxtu nu ko jullit dina tëdd ci lal daan lal bii de mooy gàllankoor gi dañ génne lal bi nañ génne lal bi nañ ko génne muhammadul mutlama bi xurmatil shahidi lishhad birida anka wa an xayril bara yaa murtada tëngërëm yooyu naa leen wax benn bu nekk benn la xam nga da ngay dem ci mooy suñu tubaab ne alal atiqi baabi tariqi axil wusuuxi kullu ridaa yi kooku kullu ridaa yi la am. Ababacar Sadiq bi mu nee ci géej Seydina Omar dañuy alal waziri sayfil basiri riddal xadiri mujjiril xadaay mujjiril xoolal jëf li mu jëfandikoo bismillaahi mujjireeha wa murseeha ismu boobu bëggoon naa ci wax waaye du doon tey waaye bi mu dikkee Seydina Ousmane mi nga xamante ni ngërëmam mi ngi jóge ci yent bi yàlla direct nga xam yent bi moo ko ñaanal moom intermédiaire mu fanaane koo ñaanal di ko sàkkul ngërëm moom Seydina Ousmane alab diyaa yi axil xayaa yi xayru rida yi minzil baqaa yi xoolal fi wit lii suñu doom minzil baqaa yi hmm? alab diyaa yi axil xayaa yi xayru rida bi mu Alin alal qaribi laysil xoro bi ah laysil xoro lilal mujibi maa irtiqaa la waa kooku moom keneen la waaye na ñoom ñëpp bi leen dajalee dañuy ridda samii alal jamii yowmal xusooy boobooy ngërëm lu mag li yowmal xusooy yowma nidaay foofu nag moom daa am ñu ko jagoo foofu la suñu diwaan ne baaha biyallaahu kiraamal xurra way baqaaya sëñ Touba dana yëkkat sama loxo bi man sëñ Touba di puuka di puukare wu ci malaayika yeeg ak yonent yi leen ndax am ngeen ko mel nii ba bi allahu kiraamal xurraa wa baqa a bi lu leer loolu dañ ko war a dégg xam nga sëñ Touba du ñii ñuy wax balaa ngay nekk dëkkale da xool njabootam gi ba noppi sëñ Mouhamadul Mourtala bi muy naafila kaamil boobu da koo booleeg dër gu métti buy wax bismillahi rahmaani rahim balaa moo àgg mu yàgg sëñ Cheikh Mbacke day wax ni maag sëñ Modou Moussa sëñ Modou Moussa bi mu ñu booleeg sëñ Mourtala ñu bokk ci bi damaa mujj woo sëñ euh, sa sëñ Modou Moussa ni ko sëñ Mourtala mii di utal ko néegu boppam ndax nax gi yëpp day fanaan di naafila te moom da kaamilam bi daa yàgg lool bismillahi moo tax moom moom sëñ Mourtala ngërëm lu mag gi fala ya yem loo ko wax daan la mooy yàlla rek mooy lislaam loolu mooy lislaam nga ne ko sëñ Tuubaa mu la mooy lislaam daan doon koo xam ni mu jihaadul ak bar la danaan taxaw ba ci dem ba ci pénc mu mag a mag a mag a mag rocci jaas yi daan ne ayibul islam taxawaatoon xaree ba dar bu taxawaatoon waaw nga xam ne mu jaahidul akbar googu ma ngërëm lu mag li nga xamante ne su suñu borom ëllëg yowmal xiyaam bu rangelee ñëpp di leen gërëm di leen gërëm di leen gërëm di leen gërëm booba ngërëm loolu mooy ngërëm lu mag li ay gërëm yu détail yu ndaw la moo tax mu ni rida sami ala jamihi yow mal xusoo yow ma ni daay yi yow ma xusoo ay yow ma ni daay yi bis boobu mooy ngërëm lu mag yi bàyyi seex mii nag ngërëm loolu rek la sàkku képp nit yëkkati na ay million lu toll ci 30 di ko ko jox mu ne ko amul ndigal amul mën a ndigal lu jël ko keroog ñoom bàyyi njagañ yi xaw nañoo de ko de ko ne ah ma xaale am na koo xamante ni mus naa wax naa ko fan yee ni ko moom day nee na saafara ji wér na lool daa bëgg ñaata mu xam ñaata mooy weexal ba ma ko waxee dani ma ëmb ni ko laaj ko dara bu mu jox dara waa ngërëmal yàlla war a diwaan minallaahi akbar ibaatuka li ayat shukur ya fil kunhi lakal hamdu ya fardan taalayta an shibhi loolu suñu hibaatuka may yi ma suñu borom may dafa ëpp lottu naa ci ko kon woo naa ñëpp ñu santale ko ko ah, kuñ naan albashiratu dafa gént gis kuñ naan banaat nabaani wala banaani muy naaw ci kaw pii ànd ak malaayka yi di naaw te dàqali na naaw bi mu xëyee mu ni ko yow lan moo la may cër bii nga am lan moo la ko may kooku mu nitu yàlla jàppoon na ni moom moo raw kii nee na mu ni ko dara ma yuma ko lu dul saxoo ak sant ak muñ ak bëri lu may jàngale xalaas loolu rek a ma ko may saxoo cant ak muñ te bàyyi seex kenn dàq koo muñ loolu moom xam naa ko ku muñ ay millions ay millions moom ku ko mën a muñ ku ne yaa dàq muñ ci àdduna it ku ko mën a muñ yaa muñ ci àdduna bis bi muy jox benn oto bi amul oto. ne génne fa way juróom wu jigéen. génne samay doom. ne génne fa ay doomam. génne sama soxna. ne génne fa ay soxnaam. delluwaat ci kër Alaaji mii di sama kilifa. ne dellusiwaat ci kër Baye Alaaji Madiagne mii di kilifaam. dénkaat lépp nag. ne dénkaat ko lépp. loolee day. ne loole day. ci xamul du jëfi nit. ne ci ku xamut du jëfi nit. ndax ab dof rek nga koy mën fekk. ndax ne loolu moom doo jëf-jëf boo koy xool xelum dof rek nga fay gis. fekk fa ngay suturloo. ne ndax nit koo fekk fa muy suturloo. nga ne pëccët jaay ko. ne fa ngay suturloo nga ne pëccët jaay ko. benn soxla. te ne jenn soxla ju taxaw joo ko waral amul. ne loolu lu ko waay waa ju ko def war ngeen a xam ni yéeme na lool lool ci def-def. natt boobu nag. ne natt boobu it nag. dund naa ko. ne dund ko. juróom-ñetti at yu manqué ay weer. ne juróom-ñetti at yu manqué ay weer. keroog xamee ni moom lay mujj ci weer wu mujj wa. ne keroog ba nga xamee ne àgg nañ ci weer mujj wa. sëñ Modou Mbakke. ne sëñ Modou Mbakke. moom sëriñ Abibu Mbakke di sama sëriñ. ne moom sëriñ Abibu Mbakke di ab sëriñam. ba ñëw. ne da ko ne da ko woolu ngin gi new ba mu ñëw. man di sa mbir damaa jaaxal. ko bàyyi Cheikh yu mi sa mbir daf maa jaaxal. am yéene ci man lool. ne tey daa am sëñ mu daam am yéene ci moom lool. mu tijji néeg. ne mu tijji néeg. dugal ma ci. ne dugal ko ci néeg bi. fukki fan ak ñaar. ne fukki fan ak ñaar. bu xëyee jox ma ne saa yu xëyee saa yu xëyee jox ko mu sangu. bu mujj bi ma bis bu mujj bi ma ñëw suba teel. ne bis bu mujj ba mu ñëw ak suba teel. defe ne daf may jox. mooy mu defe ni daf koy jox. mu ne ma man de. mu ne ko man dey sa mbir damaa ne ko sëñ Modou ne ko bàyyi seex sa mbir damaa jaaxal. ndax lii ma def nii de. ne ko ndax lii ma def de. ku ma ko defal ne naa la ma bëgg. ne ku ma ko mas defal sa jëmm am naa ci la ma bëgg. waaye bu guddee. waaye ni ko yow bu guddee. li nga àndal du nangu ma jege ne ni ko yow li nga àndal du nangu sax ma jege la. mu daal di jël xalimaam. ne sëñ Modou jël xalimaam. benn kayit ne ak genn kayit. bind benn numéro téléphone ak benn adresse. ne bind ci numéro téléphone ak adresse. ni ma demal ci jëmm joojee boo demee. ni ko demal ci jëmm joojee boo demee. ne ko boole. ne si Mour ni ko ne maaleen boole. ma dem ne mu dem fa. mbooloo ma bëri lool. ne mbooloo lool. mu ne mu ne mu dalal ko. ñu egsee ci néeg mais fi mu ko dalal ci néeg bañ agsee ba toog. mu dem ci ay bagaasam. mais mu dem ci ay bagaasam. laaj laaj. ñëwaat ne ñëwaat ci toogaat ci moom. ne ni ko ah Thiam. sonn nga de. sonn nga de. ne Baye Cheikh ne ko ne waaw. ñaar ko jënd. ne ko fi mu ne nii may waxee yow de ñaar dërëmu ndox sax mënuma koo jënd. te ay millions lañ ma daan ne te wax ko it ne ko ay millions lañ ma daan jox ma yor ko. te ku am soxlaa it ma lijjanti ma ànd ak yow lijjanti ko mu lijjanti ko. ne te it ku mos a am soxla ma ànd ak yow ci lijjanti ba mu lijjanti ko. te ne ko tey jii nag mënumaa jënd sax ndoxum ñaar dërëm mënumaa lijjanti sama bopp. mu ne ko li nga àndal day dafa jige yàlla lool. ne ko looloo daa jige yàlla lool. waaye da ngeen a waaye nee ni ko da ngeen a jubóogul. te. mu ne ko nag kon léegi juboo jot na nag. nee ni ko akamaa sonn juboo jot na de. ne moom mais mais tegtal ko ab sarax. lépp matul junni. ne sarax ba yëpp matul junni si. ca amul ma ko jënd. ne te sarax boobee sax mënu koo génn ndax amul lu ko jënd. ne bi mu del bi mu delsi waatee nag ngin ginaaw ne magam jee ne di aj soxna caam mais ne yëkkati ab junni jox ko ne mu jënd sarax ya ne alxamis booba mu saraxe ko fajar ci horaire bi. ne fajar mu dugg ci horaire bi. ñëw fii Touba. ne ñëw fii Touba. muy ci rajab. muy weeru rajab. ne bi mu agsee fii Touba. teg ne toog bangam ci buntu néeg bii. Eh, soxna demal bayal ne kum sama bàjjen kumba ni soxna ñang mais demal bajal sa nijaay mais néeg bi. mu dugg ci biir di bale. ne mu dugg ci biir néeg bi di bale. ba yàgg soxna ñang yuuxu. bi mu yuuxoo ma ne ko lan la mu ne ma lii. mu ne ko ne bi mu ko yuuxoo sa baay Cheikh laaj ko ni ko lan la mu ne ko lii. dañ ko daa am lu ma gis daw génn. nga dugg gis la fa nekk. ne moom mii daal di dugg nag si saa sa gis la fa ne. ni ko nag bàyyi ko kii damay gàttandu di ma ñaanal. Mhm. ma lal sama sijaada. ne mu lal ab sijaadaam. tur nga xam ne moom lay liggéey. ne tur wi nga xam ne moom lay liggéey. yàlla suñu borom moo ko joxal boppam. ne yàlla ci boppam moo ko joxal boppam. ne doomu aadama jox ko. ni ko nag. wax ma cib lim. ne jox ko cib lim. ni ko lim bi loo ci bëgg ma defal ko ci tur wi. foofu nag. mais foofu nag. fi laa dëgmal sama borom. mais fa la dëgmale boromam rek. sama borom boromam ci boppam fittasu ko. joxoñ ma sëñ Tuubaa. mais joxoñ ko sëñ Tuubaa te. Mhm. ma wëlbatiku mais mu wëlbatiku ci Serigne Tuubaa. Serigne Tuubaa daal di soppali ko ak leer. mais Serigne Tuubaa soppali ko ak leer. jëmm nekkatu fa. ne foofu jëmm nekkatu fa. daal di ne day dugg ci daal di day moom suñ tubaab dugg ci boromam ba jeex takk di boromam te dama xayaati lil xayaatillaahi. ba ne ba tax ne yàlla. ana sëñ tuba. ni yàlla ana sëñ tuba. mu daal may fittasuwaat joxañ ma ne mu fittasuwaat ko moom suñ borom joxañaat bàyyi Cheikh Serigne Saliou. Serigne Saliou toog. ne Serigne Saliou toog. mun ma jëmm ji. mun ko jëmm ji. mooy xut bu ni ko mooy xut bu samaanu jamono. kullu waliyu. nee ni ko kullu waliyu. mooy sa imaam. nee ni ko sëñ Saliou sa imaam. muy bu xonq. nee bu muy bu weex. muy bu ñuul. muy bii dund. mu ne ko wàllu wuy dund. muy bi faatu ak wuyu faatu mooyam yem. muy bu góor muy bu góor. muy bu jigéen. nee sëñ Saliou ci boppam mooy sa imaam sëñ Saliou Mbacke. boroom jur ak jàppandal borom xel kom borom doo ko waaw. jërëjëfati Serigne Saliou. ci la taxaw nag. ne ci la taxaw. ni ma nag waaye nag matal na day dem ni ko waaye matal na de sëñ Saliou moo jiite ñëpp mooy imaamu wali yëpp de waaye matal na day dem de. te. Ah, mhm, ne mu ne tekk ba mu yàgg ni boromam li ko jaaxal li ma jaaxal. kenn la ci sëñ ni ko moom mii kenn la ci sëñ Saliou moom moo fi des de. te nee ni ko doyaluñ ci sëriñ Saliou. ndax ñaan. nee ndax ñaan. dana ko dana dana ko fi bàyyi. nee ni ko ndax ñaan dana fi bàyyi sëriñ Saliou. mun ma nee boroom ni ko déedéet. ma ne ko lan ko fi bàyyi. mu ne lan moo ko fi bàyyi. may sikar mu ni mais muy téewaat tur yi di sikar di sikar ba mu yàgg boromam ni ko. sarax moo ko sarax moo ko fiy bàyyi ab sarax. Mhm. ab sarax moo ma lijjanti. sarax ci boppam moo ko lijjanti. moom mooy di koy tegtalaatu sarax ne ko moo fi bàyyi Serigne Saliou. muy mhm. liggéey di ba mu ni ma. ne muy liggéey di liggéey ba mu yàgg mu ne ko. sarax bi ne ko sarax bi. weer wu ne la koy def. ni ko weer wu ne lay def sarax bi. moo koy defal boppam nag. ne ni sarax bi it moo koy defal boppam. wala benn jëmm ci kaw suuf. wala jenn jëmm ci kaw suuf. mën a defal. nee moom wala jëmm jooju rek ñoo mën a def sarax bi. ndax kooku mooy buntam. nee kooku yi may liggéey di liggéey ba yàgg mun ma la sëñ Saliou Touré la ca Thiès Saliou Touré la ca Thiès ne muy liggéey di liggéey di liggéey ba mu yàgg boromam dellu wax na ko buntu booba sëriñ Saliou Touré wajuru sëñ Saliou Mbine miy toog ca cees mooy buntu sëñ Saliou te booba juróomi weer moo des ak dundam ci kaw suuf te booba diggante sëñ Saliou ak li ko fi desee juróomi weer la ci ak dund ne loolu la ko sa borom wax ne juróomi weer yi moo ko fi dese toog fii lu mat ñaari weer. ne mu toog fii lu mat ñaari weer. fekk gëstu na it mbiru Serigne Saliou ne booba it fekk na mu gëstu mbirum Serigne Saliou Touré. ba ma yeggee. ne ba mu yeggee. ma ànd ak sama benn wëlër boo xam ne sëtub Lat Joor la. ne Sidi Bamba Sidi Sidi Sidi Sidi Bamba Diop. ne mu ànd ak wëlëreem boo xamante ni sëtub Lat Joor la ñu koy woowee Sidi Bamba Diop. ñu dem ma ne kaay gunge ma Serigne Saliou mu ni Sidi Bamba bu gunge ma ci Serigne Saliou Touré. ne mu agsi mu dalal ne Serigne Saliou dalal ko. mu ko sama borom damaa booleeg yow. ne ko man de sama borom damaa booleeg yow. Serigne Saliou Mbacke day. ne ko Serigne Saliou Mbacke day. la ma xamal ne la ko xamal moom mi ni ko. sarax bi yokk wër buntu ne ni ko sarax bi yokk aw fanam. moo ko mën a defal boppam. ne ni ko moom moomee moo ko mën a defal boppam. wula sa jëmm ji wula sa jëmm ji. ndax nee na ma ndax nee na ma ci kàddoom mooy yow yaay buntam. sarax bi nag nangam. ne ko nag sarax bi nangam la. ma ko yow sa jëmm ji nag. ne nag yow sa jëmm ji. sarax bii. ni ko sarax bii. moo yokk saw ko mu yow sëñ Saliou Touré moo yokk saw fan. sarax bii. ni ko sarax bii. mooy ni ko mooy ubbi say buntu. wërsëg ni tekk ba yàgg. nee ni tekk ba mu yàgg. fukki at a ngi nii de. ne Serigne Saliou Touré di tekk ba mu yàgg ne ko fukki at ngi nii de. mun ma yaay ñetteel bi nit. ne ko yaay ñetteel bi nit. buy ñëw ni ma. buy ñëw ni ma. bu ñëw ni ma. ne Serigne Saliou Touré ni ko yaay ñetteel bi nit bu ñëw ci man ni ma. sarax bi ne ko eh, sarax bii. sarax bi ñetteel bi nit ci bàyyi Cheikh Miiri. bu ñëw ci Serigne Saliou Touré digal ko sarax bii ni ko ni sarax bii dee ko génne. ñetteel bi nit mu ne ma ma nga jógee Gambie. ne ñetteelum nit ba mu. nga jógee Gambie. ne ñi ko ñaar ñi ña nga jógee Gambie. kenn maanaam man may ñetteel. ni ko yow mii yaay ñetteel bi ma digal sarax bi. waaye lu Serigne bi bu ma jógee danaa dem waxtaan ak moom. nee nag ni ko loolu Serigne Saliou Mbacke nag danaa fi jóge dem ba ci moom waxtaan ci ak moom. ba Serigne Saliou nekkee ci wàccaay ji. ne ba Serigne Saliou nekkee ci wattaay. Serigne Moustapha Saliou. ne Serigne Moustapha Saliou. caabi yéen caabi buntu yëpp la changé. ne caabi buntu kër yi sëlir yëpp la changé. jox Serigne Saliou Touré. ne jox Serigne Saliou Touré caabi yi. fajar ga muy wàcc. ne ca fajar ga muy wàcc. kurus ga moo ko jël ci loxoom. ne kurus ga Serigne Saliou Touré moo ko téye nangu ci loxoom. ne ne buntu googu mu doon wax mooy buntam. ne mooy buntam ne foofu la ko yewal. ne te dem ci xéwal yi. ne ñëpp xéwlu. ne ñëpp xéwlu. kenn dem nag. yow ne bu kenn dem ndax Baye Bara Seck ak jàngkatu xasida yi ne lépp des na nag nañ lépp doy na sëkk lépp mat na sëkk waaye.